gëm-gëm moo koy wane ndax ku bàyyi sa kër ci weeru koor gu metti gii ñëw wuy si sa responsaabul politique donte day def social walla lu baax loolu lu metti la kon ñoo ngi nuyu population yi fi teew yépp di leen ziar bu baax a baax a baax may beral nuyoo nag moo frère et ami muy Cheikh Mouhamadal Fadal bu Madakaw sëñ Fallou maa ngi lay ziar di la nuyu di la wax ne bépp responsable politique war naa roy ci yow ndax lii mooy politique politique mooy loo am nga bokk ko ak population yi li nga am nga nangu ko ñàkk pour askan wi nga nekkal politique addition la kon sëñ Fallou ñu ngi lay féliciter di la ñaanal di la wax ne yoon wi nga jël mooy yoon wu baax wi waaye mënuñoo taxaw fii te duñ wax ak tuuti population bu Touba ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak le candidat Amadou Ba fii ku fi ñëw sax xel dina dal gisuma fi ay xale ay mag laa fi gis di ay jigéen di ay kilifa di ay grande dame bàyyi seeni kër ñëw toog am ak njaboot bokku ci dëkk bi soxna yi ñu ngi leen di soññ di leen ñaan coalition biñ bokk muy coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am ay jafe-jafe ci département Mbacké il faut le reconnaître nañ leen ko wax président Macky sàll jaar na fi gouverner fukki atak ñaar mës sa gañe fii loolu dafa war a jeex loolu lu muy wune mooy maa ngi koy wax suma benn xarit démb ne ko boo rombee Saint-Louis jëm Dagana lépp li baax ci réew mi mi ngi foofu dëkk farbangoom si añam am na lépp parce que ñoom dañuy gañe képp kuy gouverner booy gagné la nga am di ko def si sa dëkk nga koy yóbbu président Amadou Ba suñu xarit la suñu bàyyi la suñu wayjur la dañoo bëgg ñuy ñaan population Touba ñu jox ko carte yi ñu voteel ko ba bu ëllëgee ñu mën a sagu si wetam buñ demee laaj cëru Touba ñu jox ñu ko. Serigne Fallou Diop. Madakaw moo waral jataay bi man Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk député assemblée nationale jiite coalition nekkal fi askan wi ma gis jëf ju rafet ji muy jëf jëme ko ci askan wi mu woo ma ne ma naa ñëw teew jaar fi yëkkati fi ay kàddu sargal moo tax ma ñëw fi man nag ku ne xam na ni gaynde laa te bu ma dee gaynde laa ñëpp war a xam ne gaynde laa te incha allah le 24 changement dana am Amadou Ba mooy gagné président rajo bi seen saal moo tax bi ma demee ba xool candidat yi fi nekk yépp ma gis ni Amadou Ba mooy le meilleur profil moo gëm Serigne tuuba moo fi ñëw moo war a indi ndoxam moo tax ma jàppale Amadou Ba te ku ma jàppale kooku mooy gagné Sénégal. te li ci kanam rawuli bët te bu mu leen ko waxee ngeen war koo gëm fàllu ñu ngi lay gërëm parce que askan wi dañoo soxla ku leen di dimbale ba pare leen wax dëgg des man jàpp naa ni waa Touba wàccoo nan ak man fal nan ma ñaar yoon mandat assemblée nationale bu ngeen bëggee nag 2024 Amadou Ba jiite réew mi ñu ànd ak moom ngeen fal Amadou Ba 2024 bii ñëw ne saala kooku booy wër nit boo ko jàppee jàppal ne jàpp nga nit kon nag muy une personne de très grande valeur souvent dama koy wax ne man yaay sama idole référence nga ci bépp jeune boo xam ne mi ngi Touba di politique référence nga ci bépp jeune boo xam ne yaa ngi bawal ba yàlla doxee defee ñuy dox ba tey ji mu rejoindre ñu même acte de du di di wax lu baax di dox lu baax pour que nit ñi ànd liggéey pour may ndam le président de la république Macky Sall waaye tey ji aussi acte yooyu la continuer de poser pour may ndam le président Amadou Ba kon nag ñi ngi lay féliciter encore une fois de plus Fallou di la wax ne yoon wi nga tege foofu la di ñaan bépp jeune boo xam ne yaa ngi yëngu sur le plan politique ñu jël la comme modèle jël la comme référence parce que mën nga ko sëkk. ñëpp xam na ne dëkk bii di Touba ay ndaw ñu ngi fii ñu am engagement ay ndaw ñu ngi fii ñu am lu gëm ànd kook ak jigéen waaye Fallou Diop Madakaw da cee bokk ci nit ñoo xam ne c'est spécial lu daaw ma wax ne c'est spécial mooy taxawaayam ci dëkk bi ak jéegu yi mu def ci dëkk bi ak jàppale gi mu jàppale nit ñi loolu kenn ku ne war naa jëkk njukkal sëriñ Fallou Diop Madakaw kon sëñ Fallou Diop Madakaw mën naa am yaakaar dolli na ci dëkk bii di Touba pour ñu war koo mën a gagné au premier tour ndax ñu mel ne sa jëmm ji ñu mel ne sa taxawaay ci dëkk bi yàgg def social ànd koog góor yu baax yi di waa Madakaw di ay ndaw yu am engagement ndax kat yàgg na maa wax ne fal Fallou Diop Madakaw mbooloo mi yore moom moo leen yor moo leen téye ci loxo boppam ndax day nekk mbooloo moo xam ne ay intellectuel dañ cee ne mbooloo moo xam ne ñu man koo nekk benn dañ ci nekk kon Fallou ñu ngi lay encouragé ñun de lépp lu man a xam ko ak war koo mën a dox bëggan laa dooleel ñu di ci guddi ak bëccëg ndax bu du darit ay mbokk lan waaye bu du darit nit na koo xam ne ku am foo jëm nga ku am loo gëm nga bés bii mouvement Madakaw bi mu amee initiative am pour def ko dañu dem seeti ay kilifa ci département bi ngir ñu taxawuñu ñu ci jàppale ci ñu ànd ko ak ñoom Cheikh Abdou Lahad Mbacké suñu jàmbaar bi moo ne woon ku ma defal lu ñëppay gis ma sant la bañ di la te lii fi Madakaw indi daa am ay asgoor ay nit ñu nekk ci dëkk bii ñu yëkkati seen tranga dugal ko ci bu ñu dikkee fii jàkkaarloo askan wi danañ ko wax ñëpp di ko dégg. mouvement Madakaw ñoo ngi nii barke Serigne Touba barke Serigne Touba ba heure bii di dellu si déwén su ma leen waxutoon bu leen dem kenn du dem barke Serigne Touba ngor la ànde jom la ànde fulla la ñu àndee personnalité la ñu àndee mouvement Madakaw depuis dix ans élection yu mas a ñëw dañuy jël suñu position wax ko ba mu leer jëloon nañ suñu position ñun waa mouvement Madakaw ci suñu de année d'activité ne 2016 la ñu rejoindre coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu ne waaw na déet son excellence président Macky Sall yow la ñuy déglu sooy bëggaat Madakaw di la jàppale. soo taxawee Madakaw dana def lépp diir politique xool ki gën ci réew mi ñu ànd ak moom son excellence président Macky sàll dem ba gis ne la mu diggee woon ak sénégalais yi te fonk kàddoom moo ko gën a lu ne mu respecté ko ne damay bàyyi noppalu ji jox sama frère xool meilleur profil du Sénégal Amadou Ba fekk bi mu koy tànn ñun day dafa daje ak ñun ci Amadou Ba. parce que Amadou ñun ay murit lañ sëñ Touba lañ yaakaar sëñ bi dafa digle woon ne ndaw ñi ci ñaar nañ leen yar te jàngal leen bu ci ñaar yi benn mënta ñàkk nañ leen yar te bàyyi njàng mi ndax am njàngum xam-xam bu ëndute ko yar amulut njariñ borom waaye nag ak yar dana couvrir ñàkk jàng ba ku gis jàpp na yàpp ñëpp xam-xam Amadou ba ñu gis ci moom ak dal gis ci moom ak yar gis ci moom carrément ça la compétence mu nekk homme d'état am relation extérieure bokk fii ci réew mi am ak jàmm kër kilifa diina yëpp am kook jàngu bi kooku bu tàllalee loo xam ne dama bëgg danañ ko ko jox te jàpp nañ ne yi danañ ko ko jox mouvement Madakaw rek jël na engagement ci Amadou Ba incha allahu rabbi nii ñu toogee soxna yaa ngi nii li ñuy xaar mooy le 24 ñu sangu ba set teel a génn 8 du ñu xaar naaj bi di tàng ñu dem woteel Amadou Ba dem togg ndogu xaar bàcc yi ñëw bu baax waaw affaire yi wàccu ñuy bàcc au niveau national affaire bi tendance bi ku ko gis gis caravane gars yi si des sax dem nañ tëdd dal ji ñoom ndax bañ a yàq seen alal nee nañ nguur ci xamuñu fu ñu jaar dama ne bu ñu yegsee fii Ablaye Wade ànd ko Serigne Saliou ak Serigne El Hadji Bara ba yegsi fii foofu laay tëjee Amadou Ba bi ñu defee passation de service ak Sidiki Kaba dafay def déclaration kenn faat place mbooloo ma ñëpp di ko xar mu ne du wax ci politique te déw ci sama sëriñ sama waajur sëriñ Mountakha Mbacké mu ñaanal ma génn ñëw ci sëñ mu taxaa sëñ mu taxaa ñaanal ko joxañ ko Amadou Ba jóge fo dikk ne du ma ubbee sama campagne fenn fudul fi ma fekk sama kilifa Macky Sall doon ko defee laa koy defee élection yu mas a dem ci senegal fii ci departement de Mbacké la président Macky Sall ubbee campagne mu ñëw taxaw fii Amadou Ba la Serigne Mountakha Mbacké mii sëñ Touba moo ma waxal boppam ne ma bu dul woon ak université bii may tabax toll ci 36 milliards bu pare woon tey tey am ma beneen jubluwaay bu dul ndoxum Touba soppi ko moo ne ñii soxna yii toog root nañ ba sonn nabu Touba bi ndox mi. ndox yi ñu jënd parce que xamuñu fu ñu koy roote Amadou Ba taxaw jël engagement na yéen waa Touba bu leen ma falee yéen waa Touba balaa weer wi ngeen ma falee delsi ma jëlee Lac de Guiers bi ba nekk andi ko fii ci Touba ngeen di naan ndox mu neex dama ne loolu doy na sëkk ñu jàppale Amadou Ba fal ko dolli ci ne bu leen ma falee ma def bi ay zone industrielle ndax gis naa ne Touba mooy première ville population ci senegal chaque ma jël cent milliards def ci ngir ndaw ñi ci nekk man di fa dem di liggéeyi kooku kuy tànn candidat defe naa ne waroo ko fi bàyyi di dem di tànn keneen du nu jeexal nag te waxuñu ci Bassirou Diomaye Faye ci la ñu tëjee suñu kàddu man day alal kër oto soxna teraanga nday baay lépp sëñ Tuubaa ma ko gënal amuñu ku dul Ahmadul Xadim yaakaari jaam yi ci weeru koor laa nekk da ngeen may déglu soxna ma wax leen lu am solo ngeen di ko dégg basiiru Diomaye fay mii di candidat Ousmane Sonko sëriñ fàllum sëñ basiiru moo ko tudd ci ay loxoom leewu ko tudde ko sëñ Bassirou moom sëriñ Touba Bassirou Diomaye Faye dem université bee di jàng bàyyi fi yoonu murit gii dem topp la nen bi sëñ Muntaxa nekkee xalifa général de Mouride ak léegi Bassirou Diomaye Faye ñëw Touba siyaare sëñ Muntaxa ñun sëñ Touba ñu war a gënal ñëpp la preuve sëñ Muntaxa li mu daj ci Sonko ngir mu génn ci kaso bii li mu daj ci Bassirou Diomaye Faye ngir mu génn ci kaso bii li mu daj ci Sénégal yéen tëj ngir ñu génn ci kaso bii Ousmane Sonko bu mënee génn ci kaso bi Bassirou Diomaye Faye génn ci kaso bi mu ànd ak Ousmane Sonko ñuy wër Sénégal siyaara si wut mu Muntaxa demul Tiwaawan demul Njaasaan demul Lawra Ñaseen ñii ku leen jox réew mi ñu tas diine ji nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg Ousmane Sonko bi mu génnee di campagne ak léegi amul benn kër kilifa diine gu ko nit gis mu taalal koy loxo ne ko ñaanal moom ma jël Sénégal Bassirou Diomaye Faye mii nga xam ne waajuram sëñ Bassirum Serigne Touba la ko tuddee ba mu génnee day bu xamoon li sëñ Touba yor xam koy sëñ Touba xam sëñ Muntaxa mii danaan bala maa dugg sama kër ci sama waajur sama sëriñ sëñ Muntaxa laay dem mu ñaanal ma dikk sëriñ Muntaxa ñaanal ko mu wër senegal waaye nag bu fi mënee bàyyi yoon bàyyi fi mboolem luy kër kilifa diine nan ñu jël suñu responsabilité bu ñu fekk noonu sëñ Touba fenn bi di ko dooleel te Bassirou Diomaye Faye noonu sëñ Touba la maa ngi sant maa ngi gërëm Amadou Ba barki démb bi mu daje Khalifa Sall dañu bokk ndey bokk baay noonu la demee démb diggante meeg bu na Abdallah Jonn nii lañ def Cheikh Bara Ndiaye dem Daaru Musi na de humilier Mamadou Diagne Fada nan ngay fekkee koo xam ne doomu Daaru Musi la dëkk Daaru Musi yaakaar Daaru Musi ak Diagne Fada li mu def ci réew mi nga ne da koy fekk dara mais seen i dàll lañ fa bàyyi Cheikh Bara Ndiaye bi mu dem ay daal la bàyyi Daaru Musi daw waxet bal réel lañ leen dóor mu daw toog ci bi ma ne ko yow Cheikh Bara yow yaay kenn Ousmane Sow bi fi tax yow yaa taxaw fii ne ay ndomba nga yor yoo xam ne koo ko yor takk ko ci sa ndigli doo dem kaso fen fi fen wu tooy xëpp weer wi nga ko waxee dellu seegul ñu ne la te tëj ci kaso bi waaw boo mënee jël ndomba jox ko galas jóob bu ko tekkee dem kaso doo ko jox sa bopp violence bi fi nekk ñëpp xam nañ ne coalition Diomaye ñoo ko fi indi mais yeneen parti yi fi nekk allié yi gis na leen ñu ngi durale seen campagne normale suñu frère Amadou Ba moom ba mu juddoo ba léegi kenn mësu ko xam ci jëf ju ñaaw kenn mësu ko xam ci wax ju ñaaw mooy meilleur profil du Sénégal mooy candidat bi gën vif Amadou Ba jërëjëf